APR ma nga cay indi ay leeral Sud Quotidien feelu ko ne génn gi nga xam ne rek génn na ko bi mu amee téeméeri fan ci bopp Sénégal ngir def ci ab jàngat nag àdduna ci lu jëm ci wàllu fond politique coow li nga xam ne rek moo juddu ci wàllu déclaration politique générale yéenekaay bi ne APR amal na contre attaque ab tontu la ñu yëkkati nag jëmale ko ci kaw njiitu réew mi nga xam ne rek ma nga doon dellu siwaat ci yorin bi nga xam ne rek noonee la Macky Sall yoree woon réew mi ci ab ndaje moomu seqoon ak way taskatu xibaar yi samedi ji ñu weesu ci bi muy màggal téeméeri fan yi nga xam ne rek jiite na ko bopp réew Sénégal ñoom ñi fi nekkoon ci parti au pouvoir jamono ji nag jóg nañu taxaw daal di fas yéene janoo ak ngurug jomaay fay ci ab janoo guñ doon amal ak way taskatu xibaar yi Seydou Gueye mi nga xam ne rek ànd naa ki ñooñam nag daal di weddi lépp loo xam ne rek président de la république yëkkati na ko jëmale ko ci fonds politique yeeg li nga xam ne rek am na ci diggante assemblée nationale ak premier ministre bu Sénégal yéene kaay bi ne yemu ca ndax def nañu bilan ci téeméeri fan yi nga xam ne rek ci la jomaay fay jiite bopp réew Sénégal Vox Populi ne ko APR kay ma ngay def bilan bu doy waar ñeel ñetti weer yi nga xam ne rek la président Diomaye Faye jiite bopp réew Sénégal téeméeri fan yu amul benn vision amul projet te wàññeeku gu ñàkk solo jëm ci njëgu dund gi fan yoo xam ne rek amul benn xarañteef gu ñu wone lu dul wax ju bëri tànqal askanu Sénégal ak i làmbatu loolee daal lañu fi nekkee lu jëm nag ci saytuwaat gi ñu bëgg saytuwaat wàllu contrat yi nag ña ngay xam ne ne président Bassirou Diomaye Faye boo moytuwulee nag dina tàbbal réew Sénégal ci ay poursuite lu jëmit ci wàllum déclaration politique générale ñoom ña ngay xam ne ni nag ni ko président de la république xam ne nag loolee dara amu ca ndax ba na si nag amul benn saafara soo xam ne rek teg nañu ko ci taabal ji wàllum fond politique yi nag APR ma ngay défier nag ki nga xam ne rek moo di président Bassirou Diomaye Faye ci biir bi nag ña ngay xam le ne la mu tontu daal ci wàllu fond yi rek wane ne ni daal amul benn xam ci li ñu ko dénk le quotidien yëglekaay ne bilan bi nga xam ne rek Diomaye Faye mi ngi ko doon amal jëm ci téeméeri fan yi mu jiite bopp Sénégal Seydou Gueye mi porte bu APR nag ma ngay dellu soit ci 100 jours d'incompétence yi nga xam ne rek moom la gis ci Bassirou fay cer na Bocoum ne ko moom dafa war a tekki nombal tànkam ndax nag taxawaay gi mu amee daal wone ne ne nag moom dafa tëlee ngir doon njiitu réew Walf Quotidien daal di àddu jëmale nag ci xeer yi nga ko moom daal ab président par intérim la bés bi le jour xëyee moom itam nag ci tontu yi nga xam ne rek ma ngay jib démb yi nga xam ne rek moom lañ président Diomaye Faye yëkkati woon foofee ca palais yéene kaay bi xajamal cere ji Thierno Bocoum di xam ne ne am na les waxul xam ne rek am na ci mbir yi da ngay nekk président de la république wala nga doon président auprès du premier ministre ndax bu président Diomaye Faye demee ba xalaat ne premier ministre moo ko gën a légitime na tekki ndombal tànkam daal di organiser ay élection loolee moo gën lii mu nekk di def nii génn gu gi nga xam ne rek moom président de la république amal na ko ñii di waa APR ña ngay dóor ab pour pañ kii du Diomaye waa Pastef jamono ji na la ñuy xam le bokk na ci bu fekkente ni Macky Sall la koy tuumaal ne dafa roñ ko pari réew mi moo génn réew mi ñu ngi koy xaar rek ngir mu génn daal di koy weddi enquête yëglekaay ne lu mu ci mënti ak màlle ku ci kay taxaw nañu jàkkaarloo jamono ji nag ak Ousmane Sonko te yëglekaay des ba tey ci coow li nga xam ne rek am na ci diggante opposition beeg pouvoir bi ak tontu li nga xam ne rek ministre porte parole bu présidence bii di Ousseynou Ly daal dina koy tontu ci biir yëglekaay bi nag ma ngay xam ne ni lii di ngor ak jom nag bu nekkoon ci waa APR duñu génn sax naan ñu ngay jéem a indi ay tontu yër leen boobee yëglekaay addu jëmale ci leneen mu soxal mbirum Bah ginnaaw bi ñu ko tegee loxo démb jële nañu ko ci ab ma doon ko déglu ginnaaw ab plainte boo xam ne rek moo bàyyee ko ci maître Ousseynou Fall yéenekaay bi ne activiste bii dafa tënku ci loi amnistie bi nag waral moom nanguwula addu jëmale ci li ñu ko doon laaj l'observateur addu jëmale ci secret yi nga xam ne rek moo soxal audition bi ñu doon amal démb jëmale ko ci Bah Diakhaté foofee ci sûreté ba ñu ko placé ci garde à moom nag yéenekaay bi ne nanguwula tontu benn yoon laaj yi nga xam ne rek moo doon bawoo ci waa gendarmerie lañ fa yëgle kaay àddu jëmale tey jii nag ci occupation bu domaine public bi ne pré rapport bi nag démb jébbal nañu bu Sénégal commission ad hoc bi nga xam ne rek moom la ñu dénkoon lépp lu jëm ci wàllu saytu geeg càmbar gi nag ñeel occupation yi jëm ci wàllum ancien ak nouvelle dépendance yu domaine public maritime bu région bu Ndakaaru fi mu toll nii nag moom Ousmane Sonko jot na après rapport boo xam ne rek moo soxal liggéey bi ñu doon amal ñaari weer a ngi nii nag rapport boobee nag yéene kaay bi ne daañu ko jébbal président Bassirou Diomaye Diomaye Faye ayu bés yi ñu jëm nag bu ko defee ñu daal di xool nees mën a sooboo ci wàllu liggéey bi Vox Populi yi daal di xëyee ni ki tey ji nag ci njaboot yi nga xam ne dañoo xëy dem songu ji cité Marième Faye Sall daal di séddoo lu toll ci téeméer ak juróom-benn fukk ci ay dëkkuwaay yëf yi nag ma nga xewee ca Bambilor askan wi nag ñoo jot ab fausse information boo xam ne rek dafa fësal ne président Diomaye Faye nag sàkku na ci njaboot yi nga xam ne amuñu dëkkuwaay nag ngir ñu dem ci cité yooyee nag ngir lu soxal programme cent mille logements yi Mami Ndiaye di xam ne ci biir yëglekaay bi ni ab dëkkandoom moo ko envoyé message